bokki taalibe yi bokk yi bàyyi xel ci émission bi nga xam ne dañ koy faral leen ko defal ci seen émission gàgganti mu émission bu am solo boo xam ne mbokk yëpp ña ngi koy bàyyi xel mu émission boo xam ne dañ koo def ngir fàttali nit ñi seen diine waaye nag ci biir émission bi am ay laaj am solo bu am émission bi am solo moo tax ay laaj di fi wadd yoo xam ne fa tabaarakallaahu ñu ngi ko ànd ak sunu sëriñ sunu soppe sëriñ Mbacke Abdourahmane xam naa kon dañ ko jox mu nuyoo rek su ko defee ñu ànd ak moom ci liggéey bi sëriñ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 di nuyu mboolem ñi topp ëtt bi. di ñaanal jàmm di sàkku ñaanal ñu ko. jërëjëf sëriñ bi ci ubbeegu am solo googu laaj bu njëkk bi sëriñ bi euh, kii nee na ndax dana dagan ci koo xam ne dañ ko dénk alal joo xam ne daal xëy na moomu ko bi nga ko ko dénkee nag mu ci liggéey ba far asaka war ca muy laaj naka la ci génne asaka alal xam ne moomu ko waaye dénk nañ ko mu ci liggéey ba asaka war ko ci ko ci nan la koy génne ak lan la ci lislaam wax. asaka sëriñ Thierno. Hmm. ki ko moom la la ko ci asaka war. Hmm. du kiñ ko dénk. Hmm. ki dénkaane mooy xam ne barab sàngam dénkaan nafa alal. ci coobareem la ko bàyyee kon at mu jot mu xayma ko boole ko lim am. bu asaka waree mu génn ko. moom mii nga xam ne dañ koo dénk alal mu di cee yaxantu ci lu dul ndigal borom. loolu de lu ñuy tere la ndax wóorul. te it mën na ko xañ kóolute giñ ko wóoloon waaye dañuy wax nag ne bu fekkee liggéey na ci bam ci bénéfice bénéfice bi moo koy moom ndax bu pertoon day fay dañuy wax sax nag alal jooju bénéfice boobu li gënoon mooy mu saraxe ko ndax lim daf ñu ak tooñ la alali jàmbur ñu dénk la ko nga ciy soppaxandiku ci anam goo xam ne du ndigalam loolu daganut dañ koy tere waaye su ko defoon na bu am ci bénéfice moom bénéfice am mm. xëy na boobu nag lañ wax parce que da koy war ndax moo ko moom. Hmm. donte mu sarax lépp nag moo gën. Hmm. waaye jëmmi alal ji moom du moom moo ciy génnee asaka. Hmm. waaye ki ko moom moo war bàyyi xel ne barab sàngam dénkaan na fa nangam. buy limu alalam bu mu bàyyi wàllu ko xel. jërëjëf sëriñ bi ci leer yu am solo yooyu beneen mbokk mi day laaj nee na kii ab kat la ci place lay liggéeyee waaye saa yu liggéeyee ba noppi day xaaj euh, bénéfice bi ñetti xaaj. benn xaaj bi mu jox ko mu euh, jagleel ko place ba nga xam ne moom la luyee beneen xaaj bi mu jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci li di ànd ak moom di liggéey beneen xaaj bi mu jagleel ko boppam muy laaj loolu ndax loolu lislaam digle la wala ci xalaat boppam la ko def ak lan la ci lislaam wax. waaw jëfalante bu mel noonu da bi ci dagan. mooy li ñuy tudde xiraat. Mm. ñeen ñi di ko tudde mudaaraba. Mm. mooy nga jox ab liggéeykat alal jox ko capital. Mm. mu dem moom di liggéey. Mm. jënd marchandise yi mu jàpp ne bu ko jëndee am ci bénéfice. Mm. mu jënd ko di jaay. Mm. suñu dem ba waxtu woo jot. ñu génne capital bi teg ne bénéfice bi nañu séddoo ko ci nañ déggoo. bénéfice bi su fekkee ne waa ji moom mu alalam ba noppi jox ko barab. sañ na ne ko bénéfice dañ koy xaaj ñetti xaaj benn bi dugg ci barab bi ma la jox. benn bi dugg ci yow mi doon liggéey benn bi dugg ci man mi la jox sama àll. Mm. sama capital la ñu delloo ko. Mm. waaye bu perte ma amee dañuy bokk perte. Mm. amaa yow nga wut sa àll jënd sa marchandise sarse sa boutique woo nit ne ko kaay di jaay suñu suñu saa bu ñu réglé bénéfice bi ñu séddoo ko loolu daganut moom. ndax ab liggéeykat la boo xam ne eh, da daa xamul ñaata lay am. ab aamil bi ujra daa bokk ci sart yi tax mu wér. ñu xam ñaata lay am. kii nga wax nii nag xamul ñaata lay am fi mm, mm. moom dañuy dem ba rek la mm. rek ñu ne ko ren bu def nanga a génn loolu daganu bàyyi xel lu baax benn nga jàppee ko ab ajiir di ko fay par weer wala par ay bis lu ngeen déggoo saa bu waxtu nga fay ko wala bu dee par at la lu ngeen juba rek waaye na xam ne am na nangam jox ko ameel bu waxtu tàngam jotee mu lay liggéeyal nag wala nga jox ko capital moom mu tànnal boppam marchandise yi muy jënd di jaay boobaa da ngeen a bokk di liggéey su waa nag da ngeen a bokk bénéfice partement yi ngeen bokk. Hmm. sëriñ ci leer yu am solo kii day laaj ndax dana dang ci ab jullit mu nekk ci barab boo xam ne dafay liggéey waaye foofa nag moom la fay liggéey mooy di jaay ay eh, ay xeetu ak ay boisson yoo xam ne eh, lu dagan ci jullit la waaye ci biir barab bi nag barab boo xam ne dañ fay jaay sàngara muy laaj ndax dana mën a continuer foofu dafa jaay wala daa obligatoire la mu génn. ndax barab bi ci biir dafa am fu ñuy jaay sàngara. Ah, bu fekkee ne ba ci biir rëy fay jaay sàngara te moom mu bokk ci ña koy jaay. nga xam ne mm. ki jënd dal. Mm. mooy tànn. Mm. bu nee lu dagan laa bëgg nga jox ko bu nee lu xaram la bëgg nga jox ko. suba moom daganut. ndax taawuna al ismi sàngara yàlla rëbb na ci fukki nit. bokk na ci ki koy jottalee. kon ki koy jël di ko joxe. wala kii rax bitéel yi ñu koy naan sax wala ndab yi. bu taqee bu noppee ki koy raxasaat ngir ñeneen man cee naan. ñëpp yàlla rëbb na leen. kon bu dee lu mel na noonu dëgërul ab julit yëngu ci lu mel noonu. Ah. jàppalante ak ñeneen ci bàkkaar la. Hmm. Hmm. jërëjëf sëriñ bi ci leeru am solo beneen laaj mooy kii day laaj ndax dagal na ci am murit koo xam ne dafa jéblu woon ci ab sëriñ jox ko boppam waaye ñu dem ba ca kanam sëriñ boobee mu jox boppam gisut la taxoon mu jox ko boppam mooy du nekkul la tax la taxoon mu jox ko boppam daal gisu ko mooy ndax dana dagal mu bàyyi ko dem ci keneen walla déet. dama jàpp ne mbir mi tàmbaliwul foofu de. Mm. war a tàmbale ko mooy ba mu koy jox boppam lu lu taxoon. Mm. Mm. ba nit ki ba wut àndoo ci yàlla. ah. wax tabiri rijaala xabla soxba. loolu lañ sunu sëriñ jàngaloon. waaw ba ànd ci yàlla ngay dem moom leer na ne kii yoon wi nga bëgg mu jaar la xam na yoon wi te ma nga ja. kooku moom daa war na ci ay loxoom mu ànd ak waaye bu fekkee nag ne da doon rek fu njuumte la du ci bu ba xam ne kii jarul yoon waaye ma ngi ci jékki-jékki tànn lu mu xamul. Mhm. waaw waaye nag war teef ndax bu fekkee da ngaa sóobu yoon yàlla. Mhm. ànd ak koo xam ne nii sóobuwul yoon yàlla. Mhm. boo ñu ci àndee nag yaa tooñ si bopp. bu ñu àndee ci wéy. yaa tooñ si bopp bu fekkee nag njuumte wala ñàkk xam moo la ci dugaloon saa boo ko xamee nag yaa war a génn. jërëjëf bi ci leer yu am solo kii beneen laaj na mu ne euh, waajal waaye la joo xam ne dafa jëblu woon ci ab sëriñ ginnaaw bi sëriñ bi génne àdduna nag muy laaj ndax obligatoire la mu jëbli ci doom bi wala day dem ci keneen ak lan la ci eh, waaw loolu de alhaji Mbàkke Buusa mos na cee tontu radiyallahu anhu sëriñ Musaa Ka mm-hmm. ci ab taalibe bu ñuy tarbe bu sëriñam faatoo mm-hmm. nu muy def mu joxe ci jàngale mu leer nee na ku toll foofu mi ngi mel ni xale buy nàmp mm-hmm. bu yaayam faatoo te mat fer dañ koy feral waaye bu yaayam faatoo te mu tugg defar nag faaw ñu wuti kooku àggale mooy lan ki ñuy tërbiya dañ lay fóot di la duy bu fekkee noppee guñ ci yow sa kilifa faatu war ngaa wuti kooku àggale bu ko doom jamanee alhamdulilah su ko mënut kenn ko ko mën baax na war ngaa wuti moom ku la àggaleel tarbiya bi ñu def ci yow muy taxaliya ak taxaliya bu fekkee nag bi sëriñ bi nopp lu fekk na yëpp nga mat kon sooboo ci des kon soobul soobu moo ci des ndax dañ la doon defar jàng nga mm-hmm. léegi dox ci des mm-hmm. Mm-hmm. kon ñaar yooyu la sëriñ Mbàkke tontu woon sëriñ Musaa Ka ridwanullahi alayhim ajmain jërëjëf sëriñ bi ci leeru am solo beneen laaj mooy kii dafa jàpp boppam ne ab murit la waaye nag uh, amutub sëriñ bi muy dund daal ma ngi topp ndigali sëriñ bi di ko jafe waaye nag jamono ji muy dund amut jàpp wut kenn muy sëriñam mu muy laaj ndax obligatoire la ci yoon wi képp koo xam da nga war a topp sëñ bi noonu rek ci am njàngale wala obligatoire la nga wutub sëriñ ak lan la ci. ok xam nga bu fekkee li ma wax léegi ne la. Hmm. nit ki moom daa dem ba yëg ni. Hmm. am na fu mu bëgg a dem te mënu fa yóbbu boppam. Hmm. kon faaw muy bu ko soxla na ku ko fóot dindi yi ne ci moom ci ay tilim tilim. na ku ko du la ci baax mu def ko ci. kooku faaw wuti ku ko defal. mënut a toog rek ne mooy ne kon ku wopp la ba noppi toog ne du faj. bu bu ko leeree ne moom mii. Hmm. li war ci taxaliya ak taxaliya nekkagul ci moom. Hmm. daa war a wut ku ko defal. Hmm. kon faaw mu am sëriñ bu ko defal. du doy rek nga ne man bokk naa ci bàmba ji. waaye nag kenn du sama sëriñ. faaw mu am nit koo xam ne dem jaayanteeg moom. mu di ko taxaliya. di ko taxaliya. su kooku génnee adduna te matagut it. daa war a wuti fu ko àggalee. ci njabootam. moo gën a moo gën rafet bu fekkee ne am na ca. Hmm. bu ci amul nag mu wuti ko feneen. Hmm. waaw waaye moom faaw nit ki di am di am di am di am euh, bu bëggee dox ci aw yoon te xamul yoon wi. Hmm. faaw mu am nag kooku ci womal. waaye du du fetal fetal moom sëñ bi waxoon ne fuy fii ngay mujj ku koy def ko ne fuy fii ngay mujj. te mooy jékki-jékki bokk naa waaye bokki woo ci neen li na ci yow ci ay jàngoro demoo ci kenn mu dindil la ko. waaw nga taqoog nit ku baax koo xam ne lay womat hmm. di la di la dindi dindi ceew sikk hmm. di def ceew ay baax baax hmm. bu dee bu mat nag léegi ko ko àndate da ngeen ànd ngir yàlla ak sàmm kóllëre waaye nag sóob moo ci des sëriñ mag bi ridwanullahi alayhim am na ci mag ñoo xam ne bi leen defaree ba noppi bañ delloo dañoo toog fañ toog lam defoon ci ñoom ñu wéy di ko def ci ñeneen du tee nag sàmm kóllëre rek njaboot gi sàmm kóllëre ña nga seqaloon daara ja loolu lu am solo la ndax ci ci ci mottali kóllëre bokk waaye nag sóobu nag mooy liggéey bi waaw raxas nañ ba nga set ñu duy ba nga fees bul taxalaat sa bopp te bul toog it defoo dara mm-hmm. ne kon foofu sóobu la war doon mm-hmm. Mm-hmm. nag ànd caag ña nga baaxoo woon àndal wala eh, ñafi say sa sa sa sa sa kilifa bàyyi day gën a rafetal yoon wa da ko gën a baaxal jërëjëf sëriñ bi ci leeral yu am solo yooyu ah, mbokk mi day laaj mu ne lan mooy ngëneelul góor gi nga xam ne wala waa ji nga xam ne day julli ñaari rakk ay fajar ci këram te ñu wax ne ca jàkka ji lañ ko war a jullee waaye moom mu jullee ko ca këram ah, génn kër ga di dem ca jàkka ja avant muy àgg fekk ñuy taxawal julli suba lan la war a def ak lan la ci lislaam wax. waaw xam nga ñaari ay fajar. Hmm. dañuy wax ci mazhab bi ne jullee ko jàkka moo gën yeneen naafila yëpp nag jullee ko ci kër gën ba ci rawaati bi yi nga xam ne def bala ngaa jël tisbaar bala boo jël tisbaar ba noppi bala ngaa boo julli timis ba noppi nga defe ko sa kër moo gën waaye ñaar rakkaay fajar moom nga defe ko jàkka ji ko defoon ci kër gi nag sañ nga ko yit nag léegi mm. daa gën waaye néewut ni waajib la mm. boo ko defee ci kër bu demee jàkka ji da ngay ndax waxtu wu nekkul waxtu naa fi naafila mm. genn naafi lañ fi mayee ci mazhab bi mm. muy ñaar fajar mm. soo demee toog buñ taxawalee nga julli naka noonu bu fekkoon sax yow julli woo ñaar rakk dugg ci jàgg ji fekk ñuy taxawal da ngay ànd ak xasee dugg ci jàkka ji moom buñ xasee taxawal julli farata geneen jullit amu fa gudul farata ji wax nag bu fekkoonte ne yow da dégg ñuy taxawal te ak seegoo ci jàkka ji nga mën a taxaw ci bitti julli ñaar rakkee fajar yi te imaam rakka bu njëkk bi du raw. Mm-hmm. loolu dañuy bëgg nga def ko. Mm-hmm. dañuy bëgg nga def ko. Mm-hmm. waaye nag euh, su su xasee taxawal farata ji moom. da ngay dugg ci farata boo xasee am raw ba noonu da julli farata bu nee ba jant fekk nga fay ko. mooy genn naa fi liggéey nga xam ne. moom dañ koy fay. jërëjëf yëpp nag bu waxtoom jeexee jeex na. Ah, mbokk mi day wax ne euh, lan mooy àtteeb koo xam ne dafa nekk ci ginnaaw imaam. léegi imaam bi nag da ko dégg mu jàng ihdina siraatal mustaqim muy laaj lan la ci lislaam wax ak lan mooy àtteem waa xam nga am na xeet yàq yoo xam ne yoo du soppi maanaa mm-hmm. yàq yooyu gënut nag mm-hmm. waaye du yàq julli gën a taamu na mu ilimaan ji doon koo xam day jàng-jàng set mu leer mm-hmm. waaye bu koo xam ne day yàq-yàq yoo xam ne du jeexital ci maanaam bi nag bu tey julli ko baax na insha allahu taala jërëjëf sëriñ bi ci leeral am solo yi mbokk mi de laaj mu ne euh, fii ñu nekk ci sunum réew dafa am ay luwaa yoo xam ne dañ koo tëral yoo xam ne euh, jaaykat yi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu garab danañ ko jëfandikoo muy euh, lu mel ni Protet léegi muy laaj ndax euh, ki nga xam ne daf ciy liggéeyee dana dagan mu jaay ko koo xam ne du amul soxna ndax su ko ko jaayee da ci am bàkkaar wala déet wala lan la ko ci lislaam waaw xam nga suñ caarno lépp loo xam ne dimbalante ci bàkkaar la daganut ab julit di ko xam ba noppi di ko def hmm. loo xam ne eh, liñ koy doyee lenn la hmm. ko joxee ne amul soxna te xam nga ne da koy jëfandikoo hmm. kon da koy mooy yàlla kon boo ko xamee ba noppi jàppale ko ci yaa ko jàppale ci mooy yàlla borom bi day tere loolu koo xam ne xamul lu koy doy moom wala am na soxna waaye xamu ba xam foofu ko jëmee wala leeru la kooku moom boo ko jaayee yow dafa nga da ngay moom nag bu ko jëfandikoo fu jaaduwut mooy am bàkkaar waaye ku la leer ne fii dong la koy jëfandikoo boo ko jaayee am nga ci bàkkaar ba jërëjëf sëriñ bi ci am solo mbokk mi day laaj mu ne kii benn waay la boo xam ne xam naa dafa mel ne dafa bëgg nu tukki jëfandikoo ay kayit yoo xam ne nekkul kayitu way juram muy laaj lool lañ la ci lislaam wax ak nu mu war a def wóorut gënut nag hmm. xam nga wax lu wax li am la hmm. jàpp naa ne ko mën a moytu mooy li gën te léeg-léeg mu indi ni ay jafe-jafe mhm. masalan ni diwee ko la jur te mhm. diw moomu jurul la waaw loolu wax la mu tënki mhm. te euh, yeneen yeneen yeneen lor mën na caa juddoo saabu dem ba fay moo tax bàyyi xel daal la yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab loolu julli bu dee war a ko bàyyi xel di sàkku waaye bëgg jàpp ne tukki ndax ñu bari dañuy dañuy wuti. Mhm. jàpp nañu mu demee dañuy am. Mhm. waaye nag demee fi am lënd demee fa loo xam ne dëgënut loolu yu wóorul. Mhm. kon du du du sàkku gu rafet. ndax daa caa tegoon ne euh, fa inna nafsan lan tamut. hatta tastakmila rizqaha. bakkan du faatu te wërsëgam jotu ko ba mu jeex. kon jarut wutin wu ñaaw. ndax du soppi ci li yàlla nar dara. wuti yu ñaaw ñaaw yëpp fekk na li yàlla programme ne moom nga am dong ngay am gis nga sàcc yi mm-hmm. dañuy yàkkamte rek lu ñu mën a sàcc fi ne li ñu war a li ñu war a am dong la ñu am duñu sàcc mukk lu seen wërsëg wallaay dëgg la mm-hmm. waaw lépp lu ñu lekk mm-hmm. seen wërsëg la wërsëg day day lew di araam ay seen wërsëg la ñu lañ sàcc kon buñ teewoon ni li war a ñëw dana ñëw nañ yàkkat ba gàddu bàkkaar te amul leen njëriñ moo tax loolu amul jëru gën rek mooy nit ki di lu leer ginnaaw day wut na wut wuti mu rafet lu ca dikkal nekk lu dagal jërëjëf sëriñ ci leer yu am solo mbokk mi day laaj dafa bëgg ñu leeral ko diggante wadiju ak mën yu ak ak ak masiju muy laaj ñoom ñëpp lan mooy seen atte waaw yooyu yëpp de ci masab imam Malik bi ñu nekk sobe mhm. yu ndox la moo xam ne day ànd ak bànneex day jëñu buy génn mhm. euh, masiyu ndox la moo xam ne bànneex sëy moo koy xalaat mhm. wala laalante wala xool woot yi nag ndox muy jékki-jékki di génn la li gën a bari ginnaaw mu gànnaay lay génn hmm. waaye yëpp sobe lañ saa bu génnee ci nit ki war naa raxas hmm. fa doon génne ba mu set hmm. raxas la ko fu ko taq te it balaa julli wala muy jàngal alxuraan wala muy wër kaay war naa jàpp yëpp ay ndox la yoo xam ne xëy na ci ci melokaan yi xàmmee leen loolu loolu du dana jafe woote diggante mas yoog ani waaye liñ gën a ràññ ko daal mooy woot yi moom ñaare nit ki day gànnaay ba noppi rek gis leen luy génn lu tax bu dee masu yu nag ñaare di xalaat euh, sa soxna mm-hmm. soo gëj a gis wala yu mel noonu wala mm-hmm. ñuy la bànne xont ci laalante walla ci wax mm-hmm. yooyu mën na koo génne jërëjëf sëriñ ci leer am solo yooyu mbokk mi day laaj mu ne dafa am istixaara gu ñuy wooye ramlu muy laaj lan la ci lislaam santaane ak lan mooy baat ramlu mooy gisaane sëñ Cerno dëgganut gisaane ak tëneeg rëdd suuf si dafa yëpp yem mooy rajmu bil xayb la mm-hmm. jéem a xam xaybu ci foo xam ne du yoonam mm-hmm. yoon wa mm-hmm. istixaara gi ñu xam ci sunna moom gu ñu xam la ak ñaan la koy def ginnaaw boo jilee ay rakka yoo xam ne naafila lay doon waaw yen yeneen bunt yi des nag di di rëdd ci suuf si ak di kël ki nag ak yi demee noonu moom du ma tamoytu la ah, waaw jërëjëf sëriñ bi ci leeral am solo mbokk mi day laaj mu ne sujjootu xabla salaam ak baxda salaam la bëgg ko ci leeral ak lan mooy atteem waaw yooyu sunna lañ sunna yi lañ bokk maanaam nit ki bu jullee dañuy wax ci fekk ne ak julli bu ci njuumte amee nga jàng ko réparé ko moo gën di julliwaat ndax borom mi daa wax ne wala tubtulu amalakum maanaam jëf yu baax yi nga ko yàq parce que ngay julli bi yàgg nga jaawale yokk wala nga wàññi bu bul yàq jëf ji réparé ko su jóot nag la ñuy réparé julli bu dee da yokk ci julli gi lu ci bokkutoon nga waroon a julli ñeenti rakka nga julli juróom juum mm. wala nga toog fa wartu toog wala wala yu mel noonu mm. da ngay julli ba sëlmal nga mm. wax salaamaaleykum sujoot ñaari sujoot jàngaat taaya sëlmalaat loolu noonu dafar yokk gi li nga yokk julli gi te bokk daf loolu moo gën nga jóg di julliwaat naka noonu ki nga xam ne dafa wàññi ci julli gi bu amee ñaar rakka ci misaal war a toog taaya mu fàtte ko ba jóg taxaw du delluwaat di toog day continuer xam ne julli na taaya ji ci digg bi mhm. bu jullee ba sëlmal ba ba war a sëlmal mhm. ba taaya ji mat mhm. mu sujoot ñaari sujoot baa mu waat taaya ji waaye bu koy baam bi nag du ànd ak salaatu ala du ànd ak ñaan daal di sëlmal kon ñaan ak salaatu ala gi ñuy wax ci taaya ji mujj ki sujoot sujootu xabla salaam wala salaam santuñ ko mu ne ko baamuwaat kon ab doxu rasul la yem daal di sëlmal nga ne kon benn sëlmal la doon boo xam ne waaye dugal na ci ñaari ñaari sujoot yoo xam laata muy sëlmal la ko ngir jàngee ko li mu wàññee ci julli gi te bokk te te manqué yi loolu nu moo gën nga jóg di julliwaat kon la gis koo xam ne di juum juum rek da daa daa daa daa taxawalaat loolu njuumte la ndax dafa nga lu baax loo tàmbali bu ko yàq ginnaaw mays na ko yéwénal yéwénal ko kon sujjoot ba'da salaam ak qabla salaam ngir yéwénal julli goo xam daa am lu ci nekk lu ci bokkut moo xam luñ ci wàññi la wala luñ ci yokk la waaye da koy defar sunna la soo xam lu baax la am na ci yoo xam soo ko bàyyi woon mm. masalan tey ku fàtte bàyyil woon ñetti sunna ci misaal nga doon julli ab raka nga jàng fatiha ba mu jeex rek nga daal di sëgg fekk yaa ngi waroon jàng fatiha ku saar mm. ñaar raka yu njëkk masalan da ngay àggal baru koo ba siggi julli mm. xam ne raka ba manqué na fatiha manqué na taxaw gi ngay taxaw ngir jàngu manqué na béral wala yàllu ko ñetti su nango dangaa waral sujjóot xabla salaam bala ngaa sëlmal mm-hmm. boo ko defut sëlmal fàtte ko ba génn jàkk ci dellu sa kër mm-hmm. julli ko yàqu na mm-hmm. kooku dangaa war a julliwaat su matul ñetti sunna nag dañ la koy jéggal bu xasee doo ko dabaatal julli ko du yàqu waaye su xasee man ñetti sunna julli ko day yàqu bu dee sujjóot ba'da salaam moom du faat mukk fekkoon da ngaa jékki-jékki fàttaliku ne daaw daaw amoon na julli goo julli woon nga doon sujjóot ba'da salaam te defoo ko da koy def lu mu yàgg-yàgg dañ koy fay ndax day mottali li manqué woon ci julli gi hmm. comme de sëlmaloon nga julli nga yàquwut kon dabaatal ko du wees bu dee xawla salaam moom bu yàggee dootu ko mën a dabaatal kon dañuy xool ba xam li taxoon ngay sujoot mat na ñetti sunna waaw hmm. kon julli nga yàqu na nga julliwaat hmm. matul ñetti sunna jéggal nañ la ko jërëjëf sëriñ ci leer yu am solo yi xam naa suñ dernier laaj mooy kii day laaj mu ne ndax euh, sangoo sawum gaynde dagan na ci ab jullit wala déet sangoo ko ngir lan sangu moom lima ci xam mm-hmm. ngir sedd la mm-hmm. am ngaan waaye nag du seddal mm-hmm. bu fekkee ak njabar la njabar daganul benn bi ci des nag sawum gaynde bu fekkee sax na masa may dañoo wax ne gaynde dañ ko sib kon am ngaan waaye day nekk lu ñu sib dégg nga yooyu yëpp nag jëmmi yéene ko lal sax moo mat a bàyyi xel lu tax sangoo ngaan waaye gaynde yéen jooju mu waxut yàlla a jàpp mm-hmm. ndax li ko lal du lu jàpp mm-hmm. loolu moom amul mm-hmm. du sangu nañ ko tuddee neneen sangu moom ndox mu set lañ koy def ànd ak saabu ngir set sa yaram wala boog ndoxum kese ngir laabal sa yaram kon sangu ñaari la ngir set wala ngir laab ngaan waayam gaye nag mënu ci lu tax nañ ko tuddee neen lu dul di diwoo ko nag ngir fajoo ko yooyu dëgganul jërëjëf sëriñ bi ci tontu yu am solo yi kon seen émission gàggante moo nekk noonu képp koo xam ne bëgg ngaa ànd ak ñun ci émission bi mën ngaa woote 531 91 98 mooy nga ne ku ci woote da nga mën a ànd ak ñun euh, xam naa dañuy jox sëriñ bi mu tàggatoo rek su ko defee ñu tàggagu yéen benn yoon. ok jërëjëf sëñ ñu ngi lay dellu di leen nga xam ne yëpp ñu ngi doon topp jotaay bi. Mm-hmm. ñaan suñu borom. dafal ñu ak dégg ak topp. Mm-hmm. di siyaare mbokk yëpp di ñaan yàlla <coughs> nangul ñu te. jariñ ñu xamal ñu tax xam jariñ ci li ñu xamal mm. euh, jéglu ñëpp di leen baal wax nag di ñaan ñu baal ñu wax mm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci liggéey bu am solo bi ngay defal lislaam waaye rawatina yoonu murit di sant mbokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel seen émission gàgganti muy émission bu am solo boo xam ne dañ leen ko andi ngir di ci fàttaliwaat diine waaye di ci tont ay laaj yoo xam ne comme ni ngeen ko déggee sëriñ bi doon ko leeral muy lu am solo di sant mbokk yëpp di gërëm yëpp mbokk yëpp di gërëm ñi nga xam ne baaxoo nañ ànd ak ñoom ci émission bi sëriñ Abdou Lahad Thierno ak sëriñ Jili ci liggéey bu am solo bi ñu def waaye mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun technicien bi sëriñ Jili Buso ak mbokk yëpp kon ba benn yoon incha allah wasalaamualeykum wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam